ñoo ngi leen di nuyu ah euh, di nuyu euh, mbokki internet yi nga xam ne ñooy seetaan tey plateforme yi ñuy waxee euh, tey nag ñoo woon fi nga xam ne moom mooy brigade de recherche li ñu fi indiwoon di kaabu daw yaram boo xamante ne que kenn yéenewu ko sa morom di suñu ñaari confrère kenn ki di Modou Diouf bu Mprod ak ki nga xam ne mooy Amadou Fall bu Senbez amoon benn contentieux ak euh, Abdoulaye Diop Xaas ba tey ñu convoqué la woon leen fii déglu leen euh, bi yoon nag defe naa ne c'est la énième fois mooy euh, masse SBT amoon na lu mel nii ak sëñ Xaas wala dafa ne nag nettali xuloo xuloo la kañ ne dañ koy interpeller moom personnellement réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk xaas citoyen la ñoom ñi fi nekk tamit aussi ay citoyen lañu yoo xamante ne dañuy def seen liggéey guddi ak bëccëg mooy c'est de faire passer l'information à sa juste valeur donc ci liggéey boobu ñuy def nag xëj na ay nit lañu comme tout humain mën na leen ci dal mën nañ ci juum comme aussi des fois mën nañ ci tooñ mais bu yenn yi amee euh, am na nit ki xeetu kilifa booy doon sa grandeur xëj na mën na maye consensus mooy waxtaan mooy li ma waxoon barki démb suñu kaa bi ak Gaston Mbengue mooy que Sénégal nañu jiital consensus wala wala waxtaan parce que fii mooy dernière étape bi ay nit war a seq bu njëkk danga daan nekk ci kon jëlee nit balaa ñëw dem police ci chef de quartier wala ñu njëkkee ñu waxtaan wut ay solution bu problème ba tëwee nag ñu soog a dem ci yoon en tout am tey. rafetlu wuñ ko sincèrement par loolu mooy dëgg mais bu fekkee xaase ñu fi nekk am na lente ak ñoom maslaa mais rafetlu wuñ ko parce que c'est la dernière de choses Medoune c'est un professionnel de l'information Amadou c'est un professionnel yàgg nañ ci li ñu def ak ñeneen ñu mel ni ñoom te bëgguñu dérive yooyu nekk loo xam ne dafay continuel mooy ñun la presse en ligne dañuy dem ba mujj gi dañuy xaw a weex donc wala xëy na dañuy neex a néewal doole. wala dañuy neex a xañ wala dañuy neex a noot warul demee noonu te loolu lépp li tax ñu koy mën a xeex mooy que ñu ñu def tey doon benn bi suñuy collègue nekkee ci problème ñu bàyyi suñu itte ñu soutenir leen te incha allahu keneen comme ci mën a doon problème bu mën a amee nii la ñu def en masse ñëw taxaw soutenir la loolu ça n'a rien à voir ak côté maslaha man am naa maslaha ak xaas am naa ko ak keneen ak keneen ak keneen waaye nag wala ni bu jëne bëgg a daxaat tuur daanu solidarité de corps tey moo ñu fi indi solidarité ak liberté de la presse mooy ay photo yu ñu dugal ci benn vidéo euh, loolu warul jur convocation section de recherche donc nag xaas ñu lay interpeller di la ñaan ci njëkk mooy ko lu mel nii na mucc loolu sañ nañ la ko ñaan parce que nekkatoo n'importe kii ci réew mi lu mel nii mu mujj bu dee nga jàpp ni que kenn ci sunu ñoom ñun tooñ nañ la nañu utiliser yeneen voie pacifique wala yeneen voie de médiation bu fekkee ni ki ko def moo fautif danañu wax ak moom ba raisonné ko parce que fii kenn du fi jaay kenn on se connaît bu dëgg jotee dañu koy dañu koy waxante en tout li ñu mën a wax daal mooy plus jamais ça. plus jamais ça. plus jamais ça. te ñu ngi koy bëgg a subir euh, violence yi à travers la presse bari na gis nañ ko bu yàggul émeutes fi amoon marché bi amoon toujours c'est la presse ñooy payer les pots cassés mais man li ma ci gën naqari tey je parle d'une manière générale pourquoi ñun Sénégal ñu néewal doole la presse en ligne. pourquoi ñu jàpp ni que presse en ligne bi nekkuñu benn support médiatique bu sérieux parce que souvent bu ñuy wax dañ naan internet bi internet bu toile bi mais attends fii ñu fi nekk ay boromi xel lañu ay nit ñu jàng Amadou bi baam da ko fayal ay million mu jàng bitim réew mën li muy def yor ay plateforme mën ko nangam ak ñi fi ñii ñu ci bare ji génne ci école de journalisme ak ñoom Yamoussa ak ñoom Marie Diouf am ay diplôme donc support bu ñor support bu sérieux la bu ñu jàpp ne du télé du rajo li ñu yor moo gën a puissant télé moo gën a puissant rajo donc nañu jox suñu gëdd ñun tamit ñu def suñu liggéey correctement mooy c'est de faire passer l'information à sa juste valeur des infos justes et vraies ñoom daal suñu bopp reste suñu bopp parce que tamit ñi fi nekk yëpp c'est des jeunes entrepreneurs ah. ku si ne am na nit yu nekk ci yow di liggéey di jëriñ si yow. ay nit yu diplômé ñoo fi nekk di liggéey. yow mi nekk si presse en di liggéey. considéré sa bopp comme yow journaliste bi nga xam ne mu si presse écrit di liggéey. parce que internet nekkul dara lu dul la vie en adduna bi lañ jëlaat teg ko beneen côté. côté boobu dina am boutique bi dina am kuy jaay dina am kuy jënd dina am presse demee naan presse site internet dugg sama sama lamb parce que lan lan moo tax. Hmm. ñun amatuñ secret professionnel. Ah. ma hmm. mooy que da gis kenn sax ku ñëw ne non site internet yi dañuy gagné xaalis vue mais yéen ñi ñëpp kenn mënu fee wax ni yéen fi vue lañ leen fayee. Hmm. patron ñooy demante wu des fois di lijjanti di xool nu ñu def nu dem ba fay leen. mais bu ñu doon basé si ay vue rek clic wallaahi yéen ñi xanaa doo ko yóbbu mais secret professionnel boobu moo manqué suñu biir moo dañuy yaakaar ni ñun ñi non non vues ñi am nañ ciy gagné mais ça se passe pas comme ça ñun entreprise comme ñëpp bu soxla commercial buy liggéey ay jeunes yoo xam ne ñoo diplômé di ci liggéey di ñun a fulaal suñu bopp dimbali nit dimbali nit dimbali nit dimbali nit ba ko jaaree si ñeneen xam ne suñu leen bokk parce que man mënu ma man di ma woo ne ma dañ lay convoqué nangam patron presse di ma woo naan ma bu ma sonoon ngeen doxali nii bu ma sonoon ngeen doxali bu ma sonoon loolu c'est injuste parce que ñun ñëpp métier boo gis ci àdduna ñi ko bokk ñooy ànd mm-hmm. bu ñuy bàyyi ñu bàyyandoo mm-hmm. bu ñuy jàpp ñu jàppandoo ñëpp ci noonu lañu àndee mm-hmm. tey gendarme bi ma doon enquête nii boo laaloon kalaasam tey da lay yow ñëpp noonu lañu ànd ñun foo ñu am secret professionnel bu ñuy doxee di ko dundee. ba pare am am est-ce que jàppoo ne euh, ci biir liggéey bi dafa am ñoo xam ne dañoo desee gën seen bopp ndax lan ay cent mille franc cinquante mille franc te dama jàpp ne xaalis tey dafay jeex dignité ak honneur tey dama yaakaar nit loo ko jëndee jar na ko tey booy liggéey pël am problème nan nga war a comporté woo ci borom milliardaire te pël amul dara di liggéey rek ak pour man par exemple ñun ñun ñun ñun li ñu def nii nit ki da koy xam d'abord xam li li la war ak la warul mooy métier boo gis nag. Mhm. corps de boo dem rek am na ci ñoo xam ne. Mhm. ni ñuy doxalee du yoon. am nañ si ñuy doxal yoon loo xam ne neexu leen ñooñu mënoo leen see génne parce que yàlla moo leen ñu bokk si. Mhm. donc pël ba may problème li war mooy dafa am ñaari parti accusé bi ak partie civile bi day ñëw déglu pël mu wax li leen ma tooñee mu dem dégluwaat kële mu reporter juste a sa propre valeur mooy ne pël nee na lii ak lii. yaa musu nee na lii ak lii ñu xam ne faraloo gos faralee droite léegi nag keneen ku fi jël sa position loolu loolu noonu nature nit la pour man tey boo buñ la corrompre nag xaalis kooku yow la concerné parce que am na valeur yoo xam ne bu nekkoon ci yow duñ xaar bu nga si président leen ñu la koy doog a ñu la koy doog a dugalal ci loolu ñun la mais man je parle en man li may wax nii cadre général mooy li tënk métier man li may gën a insisté mooy secret professionnel moo wala am fii mooy presse en ligne bàyyi di tiim kilifa nan ko boo defee nii da ngay am vie boo defee nii da am vie boo defee nii da xaal bërëb te loolu c'est pas le cas ñu fi tëj ñëpp ay site internet dañuy mm-hmm. ñuy doxal boo xam ne dafay am journaliste am rédacteur en chef am ñi koy ñu koy cautionné ñuy dawal même yow boo ko buggee te mënoo ko doxal dem du dem non da koy xam da nga koy xam mun ko defal mu wala dem mm-hmm. lii ku mënul diriger TFM mënoo diri site internet. donc li ma ciy dolli te mu concerné ñun euh, buur wax na ko ci unité gi ñu war a maanaam dund suñu biir hmm. am loo xam ne war na bañ a àgg fu mu warta àgg te lii rafetul euh, li ñu bëgg a leeral mooy point bi nga laal c'est très important am na ñu ñu rax di yàq métier bi tax na ñu bëri yàpp ni defe ne site yëpp a defe na tey jii nii ah alors da ngay woote ah boo boobu boo ko neexalee dara rek moom mu géral sa élément bi xoolal insulte bu grave boobu noonu mais man fi may liggéey am na loo ne service commercial la concerné man je suis un journaliste sama traitement information soxla nga ma ciy fay xaalis bu ma demee sur le terrain pour jëm gu fay génn fayoo ma yow la neex nga ne kat rafet na ma remboursé ko jëm seen transport waaye kenn ci ñun ñi ñàkkoo fayda dem ci événement mu pare wala fay na wala jox ma lu ma war a yóbbu sama kër xaaruñu ko foofu noonu. Amadou li mu leeral dafa kenn ku ne ci ñun ñi jàpp naa ne xëy na tey jii bi ngay ubbi sa organe jaaral nga ko ci yoon bi ngay organiser sa organe

mu ngi koy jëf di saltal milieu bi te rafetul te solidarité ci bés yi lañ ko soxla solidarité ci situation yi lañ ko soxla nanu bàyyi di wax waxu gannaaw. tey on devait être plus nombreux. voilà buuroon di wax naan tey on devait être plus nombreux te groupe ñuy constitué wala kuréel yi ñuy bokk nombre bi tey jii nii dafa considérable wute naag li nga xam te moom moo fi teew mais loolu yëpp sax c'est pas important ndax bu su ñëpp teewoon tam du tax kenn dina wax ci tur lépp waaye li ñu mën a wax li ci gënoon am solo buur leeral na ko Amadou li mu ci dolli c'est très important dañuy ñaan ñi nga xamante ni mën ñuy teewlu rawatina ñi nga xamante ni c'est des collaborateurs ñun sëkkunu ak yéen liggéey gi nga xamante ni tey ji dañ leen di ne ndax ku fi doon dara tey ci réew mi boo ci génnee média defe naa ne nag gàtt nga xel kon tey jii ne média dañ ko war a delloo jukkal ndax c'est pas pour rien dans un pays dañuy wax quatrième pouvoir bi ñun on est conscient d'une chose certes war nañ ba suñu liggéey mu mu waree war nañ ko teg ci yoon c'est pas parce que tey jii ne am nañ outil na tey mënu neex def certes am na ñoo xam ne ñu ngi suñu biir medul xëy na la def tax na tey jëm ñun ñëpp dañu boole waale Omar parce que ñii yàq tax na léegi bu ñu waxee rek ñu ne ñoom te demeewul noonu la ñuy settantal xam ñi cee teg lii yoon ak lu dul yoon léegi nag lii tamit dinañu doon leçon ñun bu ñu ci noppee hmm. dinañ gën a defarwaat hmm. gën a waxtaanaat suñu biir hmm. gën a xam ne kat jamono toll na foo xam ne du lu neex wax du lu neex wane parce que fi mu ne suñu image moo nekk bu ñuy def la ñuy def tey bu ñu xalaatoon ne du ñu ko def te pourtant kan ko defal barki démb mi ñoom ci ay mbégteem ndax àggale nañ ko foo xam ne tey yaakaaru kon waaye tey jàkkuwul mu bëgg faagaagal te lépp mënoon nañ ko waxtaanee kon mbirum kaso ak mbirum section de recherche ak mbirum yoon moom mooy dernier recours lépp loo gis waxtaan war na cee mën a jiitu kon euh, di jaajëfal ñi ñu doon teewlu te xam ne daanaka intervention yi li ci gënoon am solo wax nañ ko ñun lañ ci doon leeral rek mooy appeler à beaucoup plus de responsabilité man lii di wax errare ulma moom ni ko latin di waxee ku dul juum amul waaye nag après bu lépp jàll mënu waxtaan ñu xool mënu koy organiser bu jeexee jeex na ndax nag olof ñaa nee na mbaam gàtt na waaye ci jur ku ne xam na ne waa seen bose muy am ak képp ku fa nekk muy Médoune Impro mhm. suñuy frère lañ mhm. suñuy xarit lañ mu métti métti nag ñoom ñu tooñ ak ñu ñàkk a tooñ ñun ñoom la ñuy àndal mhm. lenn rek la ñuy def nag ñaan njekk ah ak ku munti doon te xam ne euh, lépp Sénégal la ah, ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay àdduna amul solo parce que nit ki tey mënoo suñ la waxalee lu baax nga xoogali ko ree suba buñ la waxalee leneen ki ñuy waxal lu baax tey moom la ñuy waxal lu bon yow yaay am xalaat nga am esprit de dépassement weesu li nga xamante ne mooy li ci ginnaaw nga jéem a dabu li ci kanam te tamit dama bëgg ñu fonk ñi nga xamante ne ñooy wax yi ak ñi nga xamante ne ñooy cadre ñun ay nit lañ mënoon nañoo def leneen loo xamante ne tey nit daf ñu ciy xeeb wala leneen da ngay dégg des fois sax nit naan salaire journaliste du dara alors ñooñu di wax loolu tey jii nii journaliste yi ñuy xeeb ñoo leen tane ndax tey lu mu gàtt gàtt nit yi am nañ salaire vingt trois trois cent mille ñii am nañ quatre cent ñii am nañ cinq cent kon bu ñu xeeb nit yi nit ki bul xam sa gént xam sa gént morom journaliste yi ay noobul lañ dañoo riis bu weer dee seen loxo la ñuy tàll ñu leen koy fay ñu ciy fay seen i besoin nit da ngay gëm sa bu nekk di gëm corrompu di jéem a lijjanti numéro tey ku ku yor di ko corrompu pour lan mu lay may ay sang nga koy waxal lu baax nit amoo lu dul sa mbokk nit amoo lu dul sa mbokk amoo lu dul sa nawle lu métti métti tet yi ñooy gisante lu métti métti ñun ñooy gisante à chaque fois ñoo bokk nday ñoo bokk bu bu nangu kenn dugg suñu diggante comprendre nga wala di yàq diggante wasaare wala diggante euh, Feeling Dakar wala diggante Dakar boobu ñun ñëpp benn la ñooy gisante nit xaja suñu diggante loolu laa bëgg nit yi xam loolu tamit ñu respecté ñu xam ne ñun ay ndaanaan lañ ay noobul lañ suñuy liggéey dañ koo fonk respecté ko parce que nag nee nañ mag nag lu ko naan loo ndox bu tàng nag xam nga ne suukar saa tax tey jii nii suukar si bu nekkutoon suukar si duñ ko naan suñu liggéey bii xam nañ lañ ciy am ak lam ñuy njëriñ buñ ñu nañ respecté leen ñu ngeen bàyyi seen yi ngeen di def